tey ànd ak Serigne Mountakha ci liggéeyal Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul moo del si waat fas yéene àndaat ak yéen ci waxtaan wi ñu sumb ci jaar-jaar yi Cheikh Mouhamadul Moustapha Al Karim di ñaanal xalifam bii fi nekk tey di sëñ Ahmadul Mokhtar Mbacke mu yàgg fi te wér waaye di ñaanal sëriñ Cheikh Mbacke Madina mu sëriñ Mbacke Madina mu yàgg fi te waaye di ñaanal it sëriñ Abdourahman Mbacke xalifa sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma mu yàgg fi te waaye di ñaanal it xalifa sëriñ Aliou Mbacke sëriñ Cheikh mu sëriñ Aliou Mbacke mu yàgg fi te di ñaanal it xalifab sëriñ xaadim mbàkke di sëriñ saalihu mbàkke ambassadeur di ñaanal it xalifab sëriñ dan xariloo ak mbooleem njabootu cheikh mahamadul moustapha waaye di ñaanal it xalifab sëriñ mbàkke mohammed sëriñ moustapha mbàkke mu sëriñ mbàkke mohammed sunu soppee ba mu yàgg fi te lool ak njabootu daarul xudus gépp ci fas yéene ñëw rek ci noonu yi ñu leen ko waxe ci liggéey bu am solo bi ma Mamadou Moustapha defoon ci diiru fukki at ak juróom-ñaar yi nga xam ne ci la wutu Serigne Touba te li mu def lépp ci la ko def kon mel na ne amoon na pas-pas amoon na farlu amoon na yéene amoon na njàmbaar loola nag point buñ ci taxaw bu nekk rek mënees na cee góorgóorlu ba am ngërëmal Serigne ndax dafa jëloon njureel gi teg ko nële jël taalibe gi jiital sàmm nag ndigal li ko sëñ Tuubaa digaloon fas yéene cee jaar te bayiwu ca dara moo tax yoonu saxaar googu yi ni ngeen gisee ne ni la ko indee te ab état war koo indi te état rëddoon fi mu rëdd yoonu saxaar ci biir réew mi ba mu daj Dakar Thiès Dakar Tëngéej Thiès Njaaréem Thiès Louga Linguère Ndar Kaolack Tambacounda réseau yooyu yëpp demoon na ba mat waaye commercial bi rek desoon ci équipe bi ko doon liggéey it ñu jël leen yóbbu leen Madagascar ñi nga xam ne it mooy société bi yoroon wàllu liggéey boobu mu ngi tuddoon Batignolles moo yoroon wàllu saxaar bi ba mu góorgóorloo nag ba signé contrat yooyu yëpp ak lañ ko ca teg ba mu remplir ko ak délai ba gi yëpp mu defan ko ci juróom-ñaari at mu liggéey ko ci ñaari at ak ñeenti weer tàmbali woon la 11 fee la 11 novembre 1928 jeex la 14 février 1931 waaye bi loolu amee tubaab yi gëmuñu ko waaye yéemu nañ tamit nag ndax. lu ab état mënul def ab comité ñëw def ko rawatina kenn nit koo xam ne si ñi nga jiite ñëpp yu amuñu doole pas-pas ak joxe seen bopp te yàlla tax lañ def ba fañ mën a yem ñu mën faa yem la ca des yàlla ñëw ndimbalam lu mel noonu gisaguñ kenn ku ko mën a def ci àddina moo tax nag ñu ne léegi nan immigré yoonu saxaar gi daal di wax Cheikh Moustapha ne ko mu dajale ay bokkam nguurug France gi fi nekkoon it jox autorité française yi fi nekkoon yépp ne leen nañ leen dajee Touba ndax dañuy immigré yoonu saxaar gi Jurbel Touba gouverneur général daal di duggee fi nga xam ne mooy dakaar ak ñam àndal directeur de chemin de fer monsieur Sardine ak ñenn ci autorité yooyu waaye bi mu ñëwee Tëngéej it dafa ralentir wàcc taxaw diir su néew ñu newoon foofu yéeg mu daal di it ñëw Thiès taxaw juróomi minute ñooñu yéeg fekk Cheikh Moustapha it mi ngi woon jëreem ànd ak sëñ Basiiru ak benn naar bu ñuy wax Abdallah doomi Cheikh Sidé Baba ñoom it fekk na ñi ngi toog di waaj ngir bu train bi ñëwee ñu ci dugg Cheikh Moustapha it woowoon taalibe yépp cheikh sépp digal leen ne leen defaru leen dañuy immigré ci yoonu saxaar gi waajal ko ci ay tertu ak i berne yu am solo yoo xamee nekk ni jéggi na dayoo bi train bi ñëwee ba taxaw gaaru njërim Cheikh Moustapha génn ci kër gu mag ànd ak ki nga xam ne moom la wax sëñ Basiiru ak Abdallah bi ñu ñëwee train bi bopp bu weex moom la woon gouverneur général dugg ci première classe ña ca des dugg ci yeneen classe ya muy deuxième classe ci wagon yi ci des Cheikh Moustapha tamit bi mu ñëwee ci première classe la dugg moo gouverneur général fekk gouverneur général it wax na chef de canton yi ni leen ku jege saxaar gi na nga ñëw dugg ku jegewul saxaar gi it te jege Touba naa la fekk Touba. ñu daal di mobiliser force bi yëpp ñu daal di dem terrain bi bopp bu weex ñu def ci drapeau France sëñ Modou Moustapha dugg moo gouverneur général ñu nekk ci kanam fu mu romb relantir ñooñu yéeg ba agsi gaar bu mag ñu ñëwee gaar bu mag nag fekk na Touba fees dell nit ñi mobiliser wu def ay sappe waa kër sëñ Madibe si la ya nekk fa yor di tëgg waaye bi ñu agsee tamit fekk nañ ci njabootu sëñ Tuubaa gi ñennat ñu fi nekk ba am na ku ci seere sax seere su rafet ci sëñ Mouhamadou Moustapha muy sëñ Saalihu Mbàkke wax ne keroog day gis naa mbégte ci kanamu Cheikh Mouhamadou Moustapha gi mbégte moo xam ne la ko waral mooy xam na ne li ko sëñ Tuubaa santoon dana am loola nag tax mu bég lool ba tax mu feeñal ko ca kanam ga Cheikh Moustapha wàcc mbooloo mi topp ko ñu dox wuti daarul xuddus waaye fekkoon na nag foo fii gaar bi nekkit sëriñ Tuubaa moo ko waxoon ne bis bu yoonu saxaar gi ñëw fa may tëdd bu ko riirum saxaar gi bu ma gi fekk loola tax ñu natt ko ci diggante bu toll noonu def ko fi gouverneur général ànd ak sëriñ Mamadou safaa ak ñenn ci njaboot geeg donga yi ñu jiit la di dox di xool ba àgg fa nga xam ne mooy daarul xudduus ba ñëwee ñu daal di koy ganale mbokk yi ñëw ñu nuyoo leen ñoom ñëpp ñu ñëw ba ngoon jot gouverneur général war a dellu ba muy demit ci saxaar gi la duggaat Cheikh Moustapha it wax nañ ne di ci duggaat ba mu demee njëriñ mu wàcc ba nga xamee ne nii yàlla dogal na ñu fekke woon événement boobu bépp seen xol sedd ñoo xam ne liggéey bii liggéey la boo xam ne képp ku ko man te dëkk cim réew warees na ko fonk boole ko ca istiwaaru réew ma ba lu ñuy nettaleeti ak lu mën a doon ci njàmbaar yi fi nekk ñu jël kooka jiital ko ndax bari na ñu fi tagg ci ay xare diw rey na nit diw rey na nit di leen wooteel ak feet te kii nga xam ne li muy def yàllaa ko tax di def wane ci njàmbaar kooko moo jara wane kooko moo jara it jox njukkal loola tamit ba nga xamee ne suñu boroom dogal na loola am eh, gouverneur général ba mu delloo dafa daal di bind administration bi fi nekkoon wax leen ne leen nag jëf ju toll nii duñ yem ci immigré ko képp waaye nañ ko sargal ci àddina si ba ñëpp yëg loola nag moo tax kon bu ma waxee ne feetu indépendance bu amee jàmbaar yi liggéeyal lislaam tey réew ma ci ñaan ak njàmbaar war nañ leen a fésal la ñuy wane ba àddina sépp yëg ko ndax ku am lu kenn amul danga koy téye nu ko kenn musta téye loola tax nag ñu ne dañ koy takkal médaille wan ko àddina sépp ba àddina bi yëg ko gouverneur général daal di jox autorité française yi nga xam ne ñoom la yilif wala administration bi yëpp ak réew mépp ne leen nañ leen daje ji njëriñ dañuy décorer ji Cheikh Mouhamadou Moustapha sant ko gërëm ko joxaat ko courage loola nekk lu am solo Cheikh Modou it woo mbokkam yëpp ne leen nañ leen dajee si ci njëriñ ndax dañ koy sargal mu bëgg ca lool lool ba bis ba jotee it ñaari tànt lañu tànt ci kanamu gouvernance bu njërëm benn bi sëriñ Modou Moustapha fi nekkoon ak i mbokkam tribune officielle bi tamit autorité française yi ñoo fi nekkoon ñu daal di jox ordre ñi nga xam ne ñooy autorité yi ne leen bu ñu àggee ca bis mën na ngeen maaj muy tëgg seen it nu boobu ngir sargale ko Cheikh Mamadou Moustapha te booba réew mi amagul indépendance kon Cheikh Mamadou Moustapha marqué na point yu am solo ba ngoon jotee nag ba nga xamee ne cérémonie ba jàll na ñu takkal ko raaya croix de d'honneur boobee nga xam ne ku ñu ko takkal ku nekk rek marqué nga ay point te Cheikh Ahmadou Moustapha du woon homme d'état liggéeyul woon ci état dafa doon liggéeyal yàlla ci jihaadu nafsi ba loola am ñu di ko takkal médaille ak nitee mi tax mu nangu loola ndax xam ne ne àddina ku jaxasoog ñoom fokk nga mën maslaak ñooña loola moo tax mu nangu loola njaboot gi ñu bari teewe ko taalibe bi bari teewe ko ñu takkal ko médaille bi wane ko ci àddina si ba ñëpp yëg ko ba nga xamee ne yëf yi jàll na nag ñu daal di dajaloo ñoom ñëpp ñëw fekk si ko foofu ci Baqatul Mubarak di ko sant ak gërëm kenn ku nekk di ko kañ la nga ca man nga di ko wax ba benn géwél bu ñuy wax ci ba njëng géwélub Ngalana juuf moom moo yëkkati kàddu ca kaw ne may leen ma ñu may ko ku ñuy wax Ibba Ñing daan na sëñ Modou Moustapha ñëpp dégg la ko mu ne ko lii nga am du sens mérite la tey jii de foofu yi nga toog ku nekk bëgg naa mel na yow te ñun ñii de bëggoo cee mel na kenn mu ne ko Ibba day boo xamoon bi ma tubaab bi takkal médaille bi laaya ji ma tolloon ak ay ci tubaab sëñ Modou nekk ca loola ñu di ko kañ ba lépp jàll nag mu des nag li ca des mooy liggéeyu jumaa ji ñu tegalaat ko geneen dëgg sërëx ne ko jumaa ju toll ni ji nga bëgg ak talaay bi ak li ciy dem ci alal ak nii nga ko soxlaa mënoo koo def ci suuf soo moomul fokk nga titre foncier ko ndax boo ko deful bu ëllëgee ku ñu fi wuutu mën na koo teg loxo te deesu ko deesu doo ci mën dara kon fokk nga titre foncé ko fekk raay bi it defoon na ci 10 million te amul woon benn soutien buy jógee fenn di ko ko jox ñaq boppam ak ñaqu taalibe yi nga xam ne dafa goroon ay daara ñuy liggéey foofee rek la génne mu daal di ko koy titre foncier ci cinq million ci 4 kilomètres carrés Serigne Massourang wax nañ na moo doon dox dossier yooyu diggante France ak réew mi ak Touba ba ñu tiitar xonseel ko ko ci 4 kilomètres ci 5 millions france CFA sëñ Modou it daal di génnewaat xaalis booba daal di koy joxe moo tax it Touba am valeur bi mu am moom boppam ba kenn nit sañu fee dugg te joxuñu la ci ndigal kenn nit amu fa baat ku dul doomi sëñ Touba moo tax it Cheikh Abdoulaye Mbacke wax na ne mën de seex Moustapha li may yéem ci moom. ni mu def ba Touba moom boppam ba ku dul njabootu sëñ Touba amoo fi bàkk loola bokk na li may yëm ci moom loola nag li ko def mooy bakkanam la ci gar ndax sëñ bi daana wax ne lépp looy def gar ci sa bakkan ndax loo gërul sa bakkan doo ci jot te boo ci jaayee sa bakkan dangay am sa bakkan am la nga bëgg waaye looy def te jaayoo ci sa bakkan doo ko am loola it feeñ na ci bi nga xamee ne étape yooyu yëpp nag jàll na ñu war a jublu nag ci liggéey bi taxoon yoonu saxaar goog yi sëñ Modou def ci yéen yéen a jooju mu daal di woolu njaboot gi ca le 9 février 1932 ca Touba dajale leen ñoom ñëpp nag ne leen liggéeyu Serigne Touba bii laa bëgg ñu jublu ci taxaw na temm te yëguma nag laay bañ danaa ci def li ma am te lu ma waay joxe danaa la ko ci defal daal di wax ba ñëpp nangu. mu daal di yabale ca ndokk Cheikh Mamadou Fadal ak Serigne Massamba Mbacké ñu tàmbalee dem di roñ xeer ya ànd ak taalibe yi waaye foofu it danañ fi taxaw tuuti lan la ñuy ci démarche yi Cheikh Mamadou Moustapha def mooy jumaa ju jëkk ja wax nañ leen ne leen Cheikh Mamadou Fadal moo nettali ne gannaaw bi ñu sancee njéeréem kër gu mag 1912 ba ñu demee def ñaari at 1914 ñoom fekkoon na leen di dem Touba di liggéey di indi seeni i addiya ba ci 1914 boobu ca la leen sëñ Touba waxee ne dem leen ci arami Touba yi ngeen wut fa ay barab ña bokk nañ bokk ña mënta bokkit nañ wut seen barabu bokk nekk fa taalibe bi yéen a ngoo ànd ak ñoom te lañ wax di dëgg nee na fekk na booba moom mu sañ ci ndindi maam Abdou Guèye moom ko waxee loolu Cheikh Moustapha ne ko mii day am na tawféex ci loolu ndax am na dëkk bu mu sanc mu ne ko yow boo demee bu ko sori mu ñëw sanc tundóol yi sëñ Masamba sanc fi nga xam ne mooy Daaru Karim sëñ Fallu nee na bi ñu nekkee Ndindi sëriñ Touba daa di nekk njëreem gouverneur général dikkoon fa mu xamal ko ne ko man kat damaa bëggoon jumaa ca sama dëkk ba bële ndax damaa jaboote fii jaboote fee te ñii ñëw jóge fii di julli ji bëgguma it ñee di jóge fee di jullit ma bëggoon fa nag jumaa te bëgg it nga boole ma ñoo xam ne danañ ma ko mën a defaral te duñ ma nax nee na mu daal di koy autorisé jumaa ci la 30 avril 1926 andil ko it plan ba mu ne ko plan bii baax na waaye mu ne ko it fokk da ngay dajale ab xaalis xaalis boobee mu dajale nag fekkoon na la ko jiitu. maam Thierno joxoon ko ñaar fukki junni ak juróom-ñett muy cent quarante mille joxoon ko ko addiya mu dénk ko soxna suñuy wax awasaar nekkoon bëkk néeg ci kër gi amoon buntu bopp am na ñooñ ci foofu lañ daan jaar di ñëw ci sëñ bi bi nga xam xamee ne tubaab bi nee na ko nag fokk nga dajale xaalis ci jumaa jotool toll ne jii nga soxla ca la woo maam Thierno woo soxna awasaar moomu laaj ko xaalis ba mu ko dénkoon ba mu ko indee nag la wax maam Thierno ne ko nag na yaatu taalibe bu ne na joxe ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett bu ko manee ku ko mënul ka yore kilifteefam na ko joxe ku ko ci joxe mooy sa njot ci sawara maam Thierno ne ko ndax manees na koo yaatal mu ne ko fii ba kirikoro ba nga xamee ne loola am na taalibe yi tàmbali di dajale ba mat juróomi million ñu ubbi ko ci Banque Afrique Occidentale biñ ko ci ubbee nag am ku ñuy wax tëlëri wax ne moom kat liggéey bi nañ ko ko jox mu engagé ko te moom kat nekkul woon ab maçonnerie mu ngi nekkoon Thiès doon liggéey ci administration bu française nekkoon cercle bu Thiès ku ñuy wax Bérard Alten Bérard moom it nekkoon Mbàkke nekkoon ab trésorier ni ñoom nañ leen jox liggéey bi te ñoom ñëpp seen xam nañ ne seen manoore jëmul ci wàllu masu ñili ñu daat leen koy jox ay tappale tàmbale a feeñ ca loola waaye fekk na it sëñ Touba woo maam Thierno woo sëñ Mandumbe woo sëñ Masamba woo su maam Cheikh Anta ne leen sama jumaa jooje ca Touba laa bëgg ngeen dem def ci yitte ba mu noppi ngeen dem tàmbali ko te booba fekk na jumaay njëriñ ji door a noppi daan na ko sama borom nag wax na ma ni may mel te malaayika yit sàkk nañ koo tabax waaye dama leen am naa njaboot te dama leen a yéene yool bi kon nag dem leen gen jublu ci bi nu ñëwee ba ci soowu jumaab ji nga xam ne mooy ju njëreem ji door a noppi maam Cheikh Anta wax ne dégg ngeen li sëñ bi waxee ñu ne ko waawoo mu ne ak a jafe jumaa ji mu wax ne moom la bëgg day toll na ne ñetti tey jumaa ji te jumaa joo ji day ni mu war a mel melu ni te suñu yéene jëpp def nañ ko ci tamit gi door a noppi lim bëgg ka jafe niis tuuti sëñ kale say ñëw dikk na leen kaa leen wuyu sëñ bi bi nu ñëwee ci sëñ bi sëñ bi ne dégg ngeen bu baax li ma leen wax ñu ne waaw mu ne dem leen ngeen jublu ci liggéey bi te bàyyi lépp niibal bi sama jumaa jiide yi képp koo xam ne am nga ndombal tànk ci réew mi bëgg a jóg gàllankoor ko dana ne teg fi barab ba liggéey ko ba mu sot sotti buñ la yërëmee bala jële la fa buñ la fa yërëmul bàyyi la ci képp ku am wilaaya tamit bëgg koo gàllankoor dees na la teg fi barab ba lëggéey jumaa ji ba noppi buñ la yërëmee jële la ca suñ la ci yërëmul bàyyi la ci képp ku ci yokk di ci yokk bu faw kon nag dem leen ngeen jublu ci bi ñu génnee maam Thierno daal di wax na lu mu wax sëñ Tuubaa yàllaa ko wax ñu daal di jubali fii kër sëñ Modou Moustapha gi nekk nga xam ne mooy fii sëñ Moustapha Ndiagne ñu yor tey ñu toog foofu ñun nañu waxtaan nag xool nu ñu taxawee ci liggéey bi. fekkoon na tamit ñu am benn xaritu tubaab bu ñuy wax dalal doon liggéey ci comptoir commercial bu mag muleel porom bi nekkoon Jurbel ñu woo leen ne ko danoo bëgg nga dimbali nu ci liggéey bi ndax liggéey yu bari moo leen ci daan jàppale bañ ko waxee lañ bëggee jumaa ji mel ni leneen leen kii ña koy liggéey France lañ nekk ñu ne ko kon tey woo nga yëgalul ñu leen ko ñu daal di koy leen di woo ñu ñëw ne leen xeer yi dem ci jumaa ji amul fii Dakar la am kon fokk rek ñu ut lu ko mën a transporter indi ko waaye booba it sëñ Fallu nee na maam Thierno mi yore woon liggéey bi moom la sëñ Tuubaa jox ndigal ñu tàmbale war koo liggéey ndax ku ñuy wax beraar alteel beraar bi nekkoon Mbàkke moo leen wax ne leen man ngeen a wër li wër tund wi fu ngeen fi gis ay xeer jox nañ leen autorisation jërul ñaan permis am taalibe sëñ Abdourahman Lo boo xam ne sàmb la sant wax maam Thierno ne ko ah fii ci gannaaw Mbàkke de gis naa fi xur wu saxum sexaw te la ne ci biir niroo ki këll niroo naa xeer mu daal di woolu sëñ Fallu ca Ndindi sëñ Fallu daal di ñëw mu boole kook taalibe boobu sëñ Fallu fanaan Tuubaa ba bët set ñu daal di takk seenu saret àndandoo dem ca xurwa ban demee mu wutu bant bu dëgër fell ci xeer ya bam dara roosu mu ëmb ci kalam bi mu wan ko maam Thierno mu xool ko ne ko waaw nañ ko bàyyi fi ba tubaab yi doxantu di ñëw bu ndikkee ñëwan leen ko bi ñu ko wanee beraar altel beraar naa yii xeer moom baax na ñu daal di joxe ndigal nag ne nañ fa tàmbali dem di roñ maam Thierno ñëw ñaar fukki fan ak juróom ci safar ci Touba woo sañ sëñ lu ñu tàmbali dem di roñ xeere xeer woowee sëñ lu indi woon fañ ko sotti woon fa lañ doon sotti xeer yi ñu doon roñ moo tax mu ne xeer wu jëkk bi mën a wu mujj bi mana ndax bu jëkk bi mooy bi sëñ Tuubaa santaane wu mujj bi mooy boobu yi ko sëriñ Modou Moustapha yabale moog sëñ Massamba nee na bi ma demee di ca liggéey ba am juróom-benn fan jël daara ji woon dindi yu baale ci la yónnee ci sëñ Tuubaa wax ko ne ko man de maa nga ca ndokk di tàmbali di roñ xeer yi sëñ tubaa woolu ko bi ñëwee mu ne ko waxoon ne ko danga bëgg a liggéeyal ne ko waaw mu ne ko kon nag jumaa jàngook dana sotti te kenn du ko mën a gàllankoor ku koy ci yokk di ci yokk ku ko yokkuwul it di ci des gannaaw ba faw yow nag danga daan wax naan da nga bëgg a liggéeyal ñi ngi la teg nag ci ngir moo xam ne dafa mel ne amul pakk amul kàmb amul dara daw rek a ci des kon nag demal dana àgg te ngeen nekk fa ngeen nekk ci ndindi seeni dëkk yooyu di ñëw di fa jullee sëñ lu tàmbali ñuy roñ di indi tëlëre yëpp daal di def ay tappale wax ne dañ koy fay soixante quinze mille ci juróomi million yooyu par at wax ne it dañ koy jox oto jox ko chauffeur bu koy jëlee Cees mu ñëw di xool si suuf si ak ñëwit di xool si xeer yi loola ba mu amee tamit mu ne trois cent mille dañ koy fay ci signature contrat bi te signature boobu it kenn du ñëw am droit di gëstu di xool fu xaalis bi dugg te fu xaalisu jumaa ji yemit dañuy taxaw fekkoon na it sëriñ Tuubaa wax maam Thierno mu taxawu liggéey bi woo sëñ Mbàkke bu sama laal ko foofu yi ñuy julle fi jullikaayu xiit bi foofu lañ ko nattoon mu wuti barabu soxna may jëm barabu Cheikh Issa Diène ñu liggéey ci fukki weer jafe-jafe ya am seen digg ak tëlër yi ñu xam ne fii seen xaalis yi fi jeex waaye liñ bëgg duñ ko am Blaise jaañ am lu mu seqoon ak sëriñ bi tax mu commencé dem ak moom ci yoon ba nu demee ca yoon nag mu gañe procès ba ca France ñu daal di suspendre contrat bi ci la 4 avril 1926 yemoo ak aw tabaski maam Thierno di ko wax ko Serigne Touba Serigne Touba ne ko bàyyi leen ko ba jëmmi jamono ba ñu àggee ca tamxarit wa ci weer wii sëriñ bi wujj boromam beneen problème nag opposé wu kon xam naa ne foofu la ñuy dugg su ko defee nag ñu doore nag ñëw ci li nga xam ne. mooy jumaa ji ni ko Cheikh Mamadou Moustapha jëlaate contrat bi liggéey ko ba mu agsi tey fii mu agsi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.